waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa noo ngi nuyu. mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi. di jiital ci nuyoo bi nag ak siyaar bi Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér. ba yi mu naal suñu borom mottali ko te ñu moom. di ko ñaanal it Serigne Hamdi Moodu Mbend Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi mhm. waaye noonu lañ ko ñaanalee mboolem kilifa yi diine yëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna suñu borom defal leen jàmm mhm. te mottali naal ak yéene yi nga xam ni mhm. am nañ ko te maam yu baax yi bàyyi woon ko fi di ko ñaanal jullit yëpp di ko ñaanal mboolem taalibe yi di jotal am nuyoo nag akub siyaar ci barab bu tedd bi nga xam ne teew nañ fi mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk di fi yëngu tàmbalee ko ci kilifa gi ba ci mboolem ku fi yëngu rek ñoo ngi lay jotal ab nuyoo akub siyaare ak ñaan boo xam ne itam ñi ngi koy ñaanal daara ji ak ñi ne ci daara ji suñu borom taxawu leen te sàmm leen ndax barab yu mel nii buñ ko amee di fi jàllale loo xam ne ñëpp dañ koy mën a jariñoo rawatina di ci fàttaliku nit ku baax loolu yaakaar naa ne lu am solo la te alxuraan ne da koo santaane kon ko am moyen yu tax loolu mën a am rek wares na laa ñaanal wares na laa kon cant geeg ñaan gi yëpp maa ngi koy teg ci seen loxo wala ma teg ko ci loxo saa njaago su njaago bu defee moom dina ko mën a jot incha allah eh, ñëpp mën cee jot mhm. ndax boo limee ku ne rek di nga di nga am ñoo fàtte te wax dëgg yàlla ñëwuñu fi ngir fàtt kenn ndax bunt bii ngeen ñu may ngir ñu mën a jàllale liggéey suñu son bu loolu amel nañu ci cat goo xam ni mhm. am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem <laughs> di ñaanal nag sëñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk di mhm. xalifa Serigne Souhaïbou Mbacké mhm. ànd ko mboolem ay rakam ci mhm. taxawaay bi nga xam ne taxawee nañ ko ak taalibe yi ñu ko àndal yëpp nga xam ne jëmmi liggéey bi ñu war a waxtaanee ñetti kuréel yi nga xam ne ñoo ko séq ci seen ndigal muy turandoo Serigne Souhaïbou yi ak euh, ñi nga xam jaar na mas nañoo jaar ci daara ji jàngee fa ak fédération yi nga xam ne soppee Serigne Souhaïbou lañu ñetti kuréel yooyu daanaka lépp lu aju ci wàllu liggéey bi rek ñoom ñoo seeni loxo la aju. Mhm. rawatina nag ñi nga xam ne ñoo yor wàllu culturel nga xam ni sëñ Abo Lo sëñ Abo njaay ak ñu ñu ko àndal ñëpp ci njiital sëñ Abo Say mu sëñ mhm. daanaka ñoom lañ fi teewal. Mhm. kon nag ñuy ñaan rek lépp kàddu guñ fi yëkkati rek. suñ borom defal lu ñu am ci ak dégg ak topp. jërëjëf sëñ Abdou Akhima euh, Ndour euh, ñu am mbégte ci nuyoo bu baax a baax nuy waa Touba nag bu baax parce que dama ne Walfadjri moom. ah xam naa ni ndakaaru bëgg nañ ko waaye tubaa ak Kaolack euh, Saalum euh, bari na ci ñooy dajal ñu lay wax waxu Walfadjri rek seen cosaan danaa la tubaa wala ñun la Saalum xal te loolu dëggal ngeen ko ci ni programme boo leen am rek dañ koy bëgg a seq ak ri te loolu ñu ngi koy rafetlu léegi ñu dikk ci jëmmi Sëñ Souhaïbou bu euh, léegi balaa may ñëw sax ci kan moo doon Sëñ Souhaïbou bu maanaam lan moo waral dal gi ci njabootu Sëñ Souhaïbou bu maanaam bu bu weesoo bis bi doo leen dégg ci yeneen ak yeneen. Mhm. waaw loolu lépp li ko waral mooy jëmmi sëñ son bi ci boppam. Mhm. melokaan bi mu amee woon. moo tax képp koo xam ne yaroo nga ci kippaaram noonu rek ngay mën a mel. Mhm. ndax melokaan boobu itam xañ na waajuram moo ko defoon ci moom xañ na bu fekkee tàmbali nañ ci jëmmam leeral. dina ci feeñ. ndax alxuraan day wax ne bu ngeen dee fàttaliku nit. na ngeen xool na na meloon wala jikko ya mu amee woon mhm. ngeen di ko jéem a roy mhm. loolu moo tax sunu borom bi muy wàccee alquran di fàttali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ña ko jiitu woon mhm. da ngay gis ni kum tudd rek day wane ni moom de am na jikko ju nekkoon ci moom ci misaal bu alxuraan ne bu alxuraan waxee yonente bi sallallahu alayhi ni ko waskur fil kitaabi ibrahima da cay teg ni innahu kaana siddiqan bi suñ borom ne yonente bi fàttalikul ibrahima da caa teg ne ko moom de nit ku dëgg la woon wala nga ni waskuru fil kitaabi la innahu kaana saadiqal wa'di bi mu ne ko fàttalikul la daf ne ko moom de lu mu mas waxante yow dana ko def lu mu mas a dëlinte yow mbaa mu joxe ko yow randiwu du ko wute wala nga ni waskuru fil kitaabi Muusa mu ne ko innahu kaana muxlisan fàttalikul Muusa mu ne ko moom de ku sell la woon kon bu ñuy fàttaliku nit melokaan wi nekkoon ci moom moo tax ñu di ko fàttaliku. Mhm. sëñ son bu nag mhm. melokaan wi sunu borom def ci mboolem nit ku baax rek moo nekkoon ci moom rawatee na nag mhm. diggam ak waajuram maanaam li nekk ci moom lépp sañ Tuubaa moo ko def ci moom moo tax daray àdduna ak daray caaxaan musu cee nekk musu caa dox musu caa doxulu da daan wax ni kuy jëf ta xamoo yaa sànq sa bopp ku laaj ku xamut mu wax la moo la sànq ku laaj ko xam mu wax la te léebirul moo la sonal mhm. ku laaj ko xam te léebir mu wax la te jëfewoo lam la wax yaa sànq sa bopp mhm. kon loolu moom moo nekkoon ci moom moo taxoon mboolem ñi doon ñëw ci moom it mhm. Serigne Saliou da daan wax ni nit suñ la indee ci moom mu di la yàq su la jaaralee fañ ko jaarale naxu la nit boo ñëwee ci moom mu di la yàq su la awalee fañ ko awalee naxu la waaye bu fekkee moom dañ ko awale ci yoon wii ba nga xam ni fa lañ ko awale nga ñëw yow mu jaar ci weneen yoon mm-hmm. aw na yoonu nax la mm-hmm. sëñ son bi nag yoon wi ko ay waajuram jaarale woon ku ñëw ci moom yoon woowu rek la la jaarale mm-hmm. ndax gis nañ ci moom keroog ba sëñ Touba waxee sëñ xam Hamsatu Jaxate mi mu ko joxoon ne ko àndal ak moom te ñëw njëriñ sëñ son bi nee na keroog bi ma ñëwee lim jëkk def mooy daal yëkkati ay bagage jox ko moom sëñ Touba daal na ko fabal bagage yi sëñ sëñ sëñ son bi daal di sëgg di ko fab fàttee wax bisimilah sëñ bi gëdd ko ni ko looy def deel wax bisimilah. Mhm. mu daal di fab sëñ bi dugg ci biir kees gi mu topp ci ginnaawam muy dox ba fekk sëñ bi ci benn barab mu toog di bind bagage yi mu faboon mu di ko teg ci suuf fàttee wax bisimilah sëñ bi gëdd ko ni ko fabal mu fab mu ne ko waxuma la woon looy def deel wax bisimilah mu jël ko mu ne ko waxal bisimilah mu wax mu ne ko tegal mu teg kon kooku ci njëlbéenam nga xam ne ci atam yu néew sëñ bi tàmbali na ko wan wan melokaan la war a dundee lam jëkk defi ca jataay boobu mooy tàngalal ko ataaya xeleel ko mu naan moo ko sëñ am satu mu daal ne ko lii ma la defal lu ma ci jublu waaye boobu at yi tax na sëñ am moo ko tontul ni ko moom de mbàkki xamu ko sëñ bi ni ko damaa bëgg nga fonk alxuraan te xam teraanga loolee nag bi ñu xamee sëñ son bi ba bi ñu ko noppee xam. Mhm. ci loolu la nekkoon. alxuraan ak teraanga ku ñëw mu teral la. maanaam bi yàlla dogalee sëñ mu Moustapha làqu. Mhm. boobu mi ngi ko fekk ci jenn daaraam. Mhm. nga xam ne ginnaaw 1945 keroog bi mu ñëwee sax Touba. ca la jaayante ni dootu génnaa tuubaa nga xam ni doomi sëñ Touba yëpp moom la suñu borom defal tawféex yi sëñ son bu 45 ba 91. génnul Touba. ba 91. mu ngi biir Touba su xëyee jàng ak jàngale ci la suñu bi nekk. Mhm. te loolu boo xoolee juróom fukki at yu tegal daanaka juróom benn jege na ko. Mhm. amul fenn soxla amul ci kenn soxla lu dul ñim yor di leen jàngal bañ na ko ba ku mas a ñëw di ko seet. Mhm. daanaka waxtu wi tembe. nga daan mën a gis suñu son bi waxtu wi ñuy waxtaan tembe. fekk tisbaar di waaj a jot. te bu génnee heure bu gàtt lay doon. te tuuti ngay wax ñu nodd mu ne la julli jot na dem julli ji bu fàttuwaatee nekk ci dongo yi bu ñuy waaj waajo nodd timis lay doog a génnaat diggante bu gàtt lay doon te buñ noddee mu ni waxtu ko jot eh, wax nga ñu kii balaa ñuy yaatal ci digganteem ak sëriñ bi maanaam waajuram sëriñ Touba ni mu daan àndee ak ni mu ko daan tegee ci yoon di ko jàngal ba ci alxuraan ak teranga yi mu jël message jox ko ko eh, taxawaay boobu te ba ba muy làqu mu koy taxawoo mais digganteem ak ay magam wala ay rakkam di doom Serigne Touba yi mën nga ñu ci wax dara. waaw sëñ Sonia bu ni melokaanu doomi Sëñ Touba yëpp meloon ni la mel. xam nga Sëñ Touba dafa waxoon ni bokk na ci yi ma sant yàlla doom ju ma jur yarub saa yi mënut a ñàkk. waaye bu bëtin bi sama borom moo ma ko defal. te daa da caa teg ni tarbiyatun ayin la si lay sa yamul lay sa ka tarbiyatin ayin xat yamul. Mhm. tarbiya koo xam ne du fi jóge muy suñu borom mënut a yem te loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko ni yàlla moo ma yar rafetal sama yar loolu dafa feeñ ci doomi Sëñ Tuubaa yi loolu taxoon seen diggante rafet rafetaay boo xam ne kenn mënu la ko misaal sëñ bu am na bi sëñ Basiiru ñëw di ko di ko di ko ganesi ndax moom ñoom dañoo xamante woon maanaam sëñ Sohaybu fatu gi dafa taxoon dafa organisé woon na boppam fatu gi taxoon na doomi Sëñ Tuubaa ku ñëw di ko nuy si fi maanaam donte génnul moom dana xam ku ñëw. xam nga nuñ nuñ programme woon loolu. Mm. ku ñëw di ko seet si bu sa oto gaaree corne bi ngay korne moo koy xamal ni di wa ñëw maanaam bu dee sëñ Ablaat benn mën naa corne benn bu dee sëñ Basiiru mu corne ñaar bu dee bu dee keneen mu corne ñett ci corne yi muy dégg nag ci lay xamal ni di ñëw. Mm-hmm. bi oto sëñ Basiiru bi corne rek dañuy bëreet ni kooku de sama mag ju baax jaar sëñ Basiir kooku de wërta wërta dox di ñëw ci man di ma fekk si mm-hmm. keroog bi sëñ son bi génne di daje moom sëñ Basiir bi daf ne ko toogal yow donte ñoo la mag mm-hmm. ñëpp war a ñëw di la fekk si ndax la suñ bàyyi bëggoon muy sax ci dëkk bi jàng ak jàngale ñun ñëpp seere nañu yaa yaa na ko defal mm-hmm. kon ñun ñëpp war a ñëw di la di di la seet si loolu taxoon na bi muy doog a samp daara ji ay doo yi boppam rek la tàmbale woon deful communiqué samputi tablette yëgliwu ko da cee daa nekk ci li mu war a nekk rek jël njabootu boppam xam ne sàmm gi ko war ci njabootam ci ñoom la war a tàmbale mm-hmm. mu tàmbaleeg ñoom diir bu gàtt ñi bokkal sëñ Tuubaa ñëpp gis ko mm-hmm. doyloo ko jël seeni doom andil ko doom yi Tuubaa yi bu dul taaw yu mag yi fii may wax ak yow nii amul génn kër sañ Tuubaa gooy dem te njaboot dafa nekk jaaruñu daara sëñ sëñ soñ mm-hmm. fii may wax ak yow nii bari na sax ñu nekk ay xalifa ci daaram lañ génnee bari na tey ñu yor kàddu kaddu kaddu gu gu gu kawe kawe na man mën naa ci tudd ku mel ni sëñ Bass Abdou Khadir mi mhm. yore kaddu yoonu murit mhm. ci daara yi sëñ Souhaïbou la génne imaam yi gën a mag fi mu toll nii ci réew mi ci ay daaram lañ génne mhm. te noonu mu amee ci doomi sëñ Tuubaa yi ñi mu bokkaloon muy seex yi kër maam Cheikh Ibrahima Fall kër sëñ Issa Dieng kër sëñ Massamba Diop saam amul kër gooy topp ci mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa ñoom ñëpp it te ñoom it seeni doom nekkuñu woon ci ay loxom kon melokaan yu rafet yooyu moo taxoon ñoom ñëpp ñu yëkkati seeni doom andil ko ko. waaw allah waxtaan bi am na solo déglu gi sax day far dàq. Mm-hmm. Euh, di kii euh, lii nga xamante ne bi kilifa gi li nga xamante ne bi moom nga wax nii mu nekk njàngale moo xamante ni bi wax dëgg fa yàlla jàngale mu am solo la euh, tey jii yow bu fekkente ne bi toog nga gis ni comme yéen ñi nga xam ne noonu ngeen di wattu mbir yeeg yooyu ngeen gis ni réew mi ci jamono ji ñu toll nii nga xam ni. actuellement dañuy wax ni ay valeur ak ay kiiw ak yu bari dafa manqué ci jamono ji ñu toll nii noo gisee yëf yi fan la fan lan nga jàpp ni moom moo war a tax ba lu mel noonu war a mën a am ci réew mi ba nga xam ni fi mu doon nit ñaa ngi wax valeur ak et cetera ndax mbir yi fan la. fan la euh, mbir mi war a. waaw comme ni ñu ko waxee woon léegi rek ci njabootu sëriñ bi. Mm-hmm. yoon wa seen waajur jaaroon rek ñoom ca lañ jaar sëñ bi moom ndaka jekk hmm. adduna du mbiram hmm. xam na ko nag waaye tax ko woon a jóg da hmm. ko wanoon ginnaaw waaye loo wan wan adduna ginnaaw it sëriñ tubaa da daan wax ne yàlla indi fi nit ngir mu beru menn moom rek di lijjanti boppam taxul kenn ñëw fi te li koy firndeel mooy am na jenn doom bi sëñ Abdou Lahad xam ni jërul muy tudd aw turam ndax sëñ Abdou moo ko sëñ Sohaybu ñoo bokk lépp bi mu jàngee ba mokkal alxuraan jàng aslëf ci xam-xam da ko woolu mu dikk mu ne ko damaa bëgg nga jàng ni ngay jëflante doomu aadama yi ba mën leena a jariñ mu am doomi sëñ Sohaybu ju mu dem ni ko ñaanal ma dama bëgg nga ñaanal ma ci sëñ Abdou Lahad mu may ma tuuti ma yeggale sama jàng ndax bu ma amaati juróom benn weer rek li may jàng dina yegg sëñ Abdou Lahad ni ko nit de bu fekkee ba nga juddoo nga tàmbali dégg sëñ bi waaw nit ñi gëm la lu waaye yor jox la ko te sa bàyyee tax àgg na ci boo bëggee sangu sax ñu duyee lam ndox yóbbu la ca wana wa boo xësee xam la ngay jaamoo yàlla loo cay dolliwaat lu war a jëriñ mbindeef la war a doon waaw mm. wax jëm gan ko waxoon fee moo dellu si boo xësee ba xam ni ngay jaamoo yàlla te mooy jëfe ndigal bàyyi tere yi mm-hmm. loo cay dolliwaat mm-hmm. la ca war a jiitu mooy noo mën a def ba jariñ askan wi. jariñ askan wi waaye beru mennum yow rek. Mm-hmm. dem ak sa bopp loolu taxutoon sëñ Tuubaa ñëw fi taxutoon doom yi ñëw fi looloo taxoon nag ñoom ñu doon sonn sonn. Mm-hmm. ci san sanc ay barab. ngir mën a jariñ doomu aadama yi ndax sëñ Tuubaa daf ni leen woon. Mm-hmm. kilifa ñett yi rek ci la mën a tënku. noppal boppam noppal ñim ñi ñi mooy jàjju ba. jàjju jàjju ba jàng. waaw julli. bay ñett yi mooy ndoona li leen sëñ Tuubaa jàng julli bay ñett yi la leen sëñ Tuubaa bàyyee woon jàng julli bay bay daal ni su ngeen ko defut li li koy waral mooy doomi soxna mhm. su jàngul du amal boppam njariñ du amal ñam àndal njariñ dëgg te dañuy am mbàkke na nag ko sant mbàkke waaw am mbàkke mbàkke amul ci moom jëmmam lu gën a taaru mhm. xam bu koy dolli diine xam-xam bu koy dolli diine ndax fa kay fa tatmanu li sax seen jànn walam tu mayis fardu ko min sunna yow noo bëgg a warlulee ay nit àjjana mm-hmm. te xam ne woo farata ak sunna mm-hmm. ah, loolu moo taxoon ñoom mm-hmm. liñ jëkkoon a def mooy taxaw ci saytu askan wi waaw 45 gii ma la wax nii ba 91 sëñ son yi bu dundam gépp ci doomu aadama yi da ko jeexal te li ëpp ci ñim jàngal du ñuy mbokkam te amaana am na ñoo xam ne keroog ba ñu wàccee leen lañ mujj a gis waaye dafa xam ne doomu aadama yi yàlla di leen fa indi ñu di leen saytu ak di am na ay jamono ci daara ji mm-hmm. état bi yebal fa aw nit mm-hmm. ñu ñëw ni ko réew àdduna kat dafa toll foo xam ni dañuy waxtaan ci wàllu àq ak yelleefi doomu aadama mm-hmm. donc yi nga xam ne dañ leen di jéng ak di leen dóor loolu daal gis nañ ni àdduna ci boppam nangootu ko comme yow dangaa yor mbooloo te di leen defar nag ñu ne woon nañ ñëw waxtaan ci yow sëñ soxee bu ni leen bépp dongo bu ngeen gis ñu jéng ko ci daara ji. lañ koy bañal mooy bu màggee. def ab safaan bañ yeew ay loxoom di ko yóbbu ci kaso. tamit dëgg. ndax kuñ nopp ci moom rek. Mhm. kaso dootu am ci moom ak yoon. Mhm. kon bu leen jàpp ni ñii ñu yor ci daara ji di leen di leen jàngaloo dañ leen a jubloo fitnaal. Mhm. dañ leen a bëgg a teg ci yoon woo xam ne bu ñu màggee amal seen bopp njariñ amal askan wi njariñ. taxawoon na woon nañ taxawaay boo xam ne itam. nitu adduna ko ndax sëñ bu programme bii ma la wax ne moom la tëraloon loolu amu ci woon xa xeej ak seen mhm. ñëpp ci yamoon ba ci nitu adduna da daan wax ni nit bu ñëwee di la seet nga toogloo ko cib saal mhm. lu jigéen ñetti waxtu bu ko fa soxla indiwul dëgg du la fa xaar mhm. looloo taxoon moom. même bu soxla andiwul dëgg du la xaar. am na ñoo xam ne soxla leen indi am na ñoo xam ne ñëw di seet. am na ñoo xam ne sax jëf lu bon mën na leen a tax a ñëw. moo taxoon ba ci wàllu euh, état yi ak yooyu noonu la ci doxee woon. Mm-hmm. xam ne yow boo ñëwee ñu ni tey dafa am autorité bu koy seet. Mm-hmm. boo ñëwee. Mm-hmm. da nga koy fekk moom yi muy jàngale te mënoo ko wax lu tax mu bàyyi bu ñëwee ministère sàng mooy nuyoo. waaw mu ne nañ ko dalal ci salle bi. mën nga faa toog lu ñett lu ëpp ñetti waxtu te sëñ sooy bu génn priorité mooy daara jàngal yi daal ni nit gisut ni kii ab ministre la wala kii waaye li mu gis mooy li mooy dë dalaa li li yées ci kilifa mhm. mooy ku la bëgg gis mën laa gis <laughs> ndax nit mën naa ñëw ngir war a defu safaan mhm. te duñ ko xam dëgg la nga ñëw ñu ne ana sëñ bi mu ni ma ci biir mën naa def ci loxoom loo xam ne bu la ko joxee mhm. bàyyi ca tooke joo xam ne dootu dañ ci yow ilaa yu mu dëgg la naa ànd ak loo xam ne itam mën naa tàq mën na laa tàqaleeg sam ba toog foto woog yow wan nit ñi nii laa demee ak sëñ bi. Mm-hmm. ak lii la ma sëñ bi wax. Mm-hmm. te yow doo mën a génnaat fu ne nga dem fa ni waxuma ko. Mm-hmm. waaw. loolu de ah xew manipulation am na benn bu bees rek bu mu ci yëg démb. Ah. bu ñu def ab sëriñ. ab nit toog ak moom mu wóolu ko waxtaan wa waa ji enregistré génne. waaw lii ma a wax ni doomi sëñ Tuubaa yëpp ci lañ maase woon boo gisee sëñ Saliou. sànq am na loolu loolu nettali ci waaw foofu waaw. mel num Ablaye Wade. Mm. la mayoon. di wéet ak moom ci ak mu jëm sëñ Saliou te su wéeteek moom it bu Abdoulaye di génnee mm-hmm. day woo dongo yu mag yi ko jege. wax leen li mu wax ak moom xam nga lu ci jublu <laughs> waaw pour bu ñu waxee leneen daf ne daf ni ñoom yàlla da leen a binde noo xam ne waaw suñ wéetee ak yow mm-hmm. ba nga wax ak ñoom buñ génnee dañ naan lii la ma sëñ bi wax te yéen ñi ma jege bu ngeen ko bu ngeen xamul li ma wax da ngeen di defe ne loola laa wax waaw te man mënumaa topp ci rajo yëpp waaw rajo bu ne ma ni waxuma <laughs> déedéet mënta de moo tax dalaa wax ni tuuma weddi du ko dindi déedéet léegi am na lu ñu waxoon ci diggante digganteem ak Abdou Diouf Abdou Diouf it dafa ah. mas a ñëw ci Serigne Saliou mm-hmm. maanaam li ma lay wax ne doomi Serigne Touba ñoom amuñu ak wuute mm-hmm. amuñu wuute ñoom ñëpp ñoo bokk benn benn méthode mm-hmm. melokaat yi nekkoon ci Serigne Souhaïbou waaw Serigne Souhaïbou am na bis mu ni man de ñoo bokkal bàyyi nangu nañ ne dama mën a yar. waaye man na man it nangu naa ni sëñ Saliou ma dàq yar. Mhm. daal ni man soxay bu ku ma noppi ci yow. foo mën a dem ci àdduna di mat ilimaan. Mhm. waaye sëñ Saliou de ku mu noppi ci yow. da ngay boole mat ilimaan ba noppi mat jëwriñ. Mhm. kon ñoom ñoo bokkoon benn liggéey. sëñ maanaam pour tolluwaayu jamono yii rek ñu xam ne ñun bu ñu delluwaatoon ci ci njàngale mag ñi. waaw amut amut lu ñu jaaxal. amut lu ñu jaaxal. sëñ Saliou ay jamono. Abdou Diouf daa ñëw ci moom. jamono bi muy doo ko falu rek ndax xam nga xel koom bi ko sëñ Saliou di laaj. la ko jiitu boobu nekkagul xalifa. waaw taxutoon mu jot ci. Mhm. bi mu demee ba nekk xalifa nag la état bi commencé nag di dox tànk yooyu pour jox ko ko. Mhm. Abdou Diouf ba mu njëkkee ñëw ci moom ne ko damaa bëgg nga wax loo bëgg ma dimbalee la ko. Mhm. ci wàllu xaalis. sëñ bi def ne ko bu dee xaalis am naa ko ba mu doy sëkk te ko dara. yow nag askan wi ñoo dajaloo fal la ni la yaa leen doy. Mhm. kon seeni soxla yaa ci war a taxaw. Mhm. Mhm. saa soo ma nee nag man mi fi nekkal njaboot gi soo ma nee lii aw yoon la tëli fu ñu koy def. danaa xool fa mu yell ma wax la ko soo ma nee ndox la fu ñu koy def ma wax la fa mu war a dem soo ma nee courant la fu fu muy dem ma wax la fa mu war a dem. waaye jëlub xaalis di ma ko jox moom sequñu ko. ndeysaan. taxul Abdou Diouf dellu gi ginnaaw de bañ demee ba ca màgga ga ca topp dafa woote réunion ni damaa bëgg wut damaa bëgg wut fukki millions yónnee ko sëñ Saliou ñu ni ko la la sëñ bi waxoon de jàpp nañ ne moom génnu ca Abdou Diouf nañ ko yóbbu rek jamono boobu Madiang Khary Dieng waaw la ñu tànn ni comme moom am murit la xañ na bu ñu ko joxee fukki millions yi bu demee mm-hmm. sëñ Saliou du ko delloo majang xarija yóbbu fukki millions yi ba mu àggee sëñ Seydou daf ne ko boo yeggee nel Abdou Diouf man du ma mag moo xam ne lu ma wax tey bu suba ma génn ci la ma ko waxoon démb ak bërki ca laa nekk majang xarija ngi daal di jooy ne ko mbàkke li ma moo tax jox ma ko dimbali kon léegi daf ma joxoon mu ne ko waaw mu ne ko waa léegi boo yeggee nel Abdou Diouf dama ko ko dénkaat na ma ko téel ba ma am ci soxla ci ay waaw nga xam ne jamono boobu ca la Sonacos seen gaz ba am problème ña fa yàqule ca la ko téléphoné ne ko li nga ma joxoon tani maa ko moom askan wi ko soxla yët leen ko bu baax kon doomi sëñ Tuubaa yëpp ñoom ni ci nii lañ meloon mbirum politique ak mm-hmm. ay wate seen yoon musi ca nekk ñaaxa njaaxaanaay lañ ci ma a tëddee pour yow politique lan la mën a yàqal sëriñ parce que tey jii ñi ngi gis ñi sàllalu sëriñ yi am ñu leen ñàkkee teggin mm-hmm. am na sa ay termes yoo xam ne bëgg ma ci jaar mm-hmm. ci internet bi jëm ci sëriñ fi actualité toll ak fi ñu tegoon sëriñ daf mel na ñu ngi ko fay bëggee a teggi parce que maanaam kilifa. askan wi la fi nekkal waaw nekk lu fi état nekk lu fi keneen ndax état moom dafay nekk bu subaa mu jógee fi. waaw tamit kilifa goo gis. yàllaa ko sàkk def ko kilifa. Mm-hmm. jël njabootu njabootu boppam gi nga xam ne njabootu yàlla lañ. Mm-hmm. teg ko ci loxoom. Mm-hmm. su leen bëggee noppal nag moom. waaw day tëddee njaaxaanay. élection ya sëñ Mourou Boussa Dieng. waaw demoon ci sëñ Saliou. ni ko élection yi daa jublu si te yaay suñ kilifa. sëñu maa wax taxaw ma noo ci tëddee. sëñ seen bi daf ni ko li ngeen di xëccoo kat lenn la li li réew mi xëccoo lenn la mhm. te ñi ko yor dama caa amum njaboot ñi ko bëgg ba di ko xëccu dama caa amum njaboot mhm. kon mënuma la may tëddee njaxaanaay wallaay yéen taalibe yi nag ku ne am na sañ-sañu seet fa ko neex mu féete ko. macha allah waaw léegi nag euh, ñu ngi tëj ah. dugal nañ ci sax tuuti actualité pour nga laay biir nu tuuti. léegi nag programme bi. léegi ci ñuy dikkal ci ndorteelu koor gi nan lay demee ak kañ la. Euh, di di fàttali ni turandoo yi taalibe yi ak doom yi ñoo ko seex. waaw kon niñ ko waxee woon léegi rek. Mm-hmm. ndax waxtaan yi moom buñ ko toppee du jeex. waaw du jeex te Serigne Soxay bu moom. day koo xam ni. Mm-hmm. géej la koo xam ni. yaakaar naa ni kenn umpaleetu ko kenn umpaleetul jariñ ko mu jariñ askan bi mm-hmm. téere yi mu taalif rek bu yemoon ci xoratul ay ni rek doy na sëkk mm-hmm. téere boo xam ne ñëpp mën nañ koo jëfandikoo te ci wolof la ko def te lépp lu nit lu dox diggante digle ak ak jëfe tënk na ko ci waaw suñu son bi kay moom dama ni la <laughs> maanaam bu fekkoon aw yoonam doxe nañ ko yii xew di xew ndax moom ay mbirum taxawaaloo <laughs> gane yaa nekk mm. yu bari yoonam néew ci woon. nii la nga ko dee def rek sa yaay sa yaay da lay am lu mu la wax. da sëñ da ko daan tere. lim gën a bañ ci àdduna mooy ku toog loxoy kese. Mhm. <laughs> ku nit daaw di yëngu loolu ci sëñ Tuubaa dañ ko jëlee. waaw daa am bis sëñ bi ñëw fëgg ci barab ku toog fii. am ku ni man la diw loo mu ni ko doxee rek mooy comme ni ma waxoon ci njëlbeen gi ñetti kuréel yi nga xam ne ñoo séq liggéey bi muy turandoo sëñ son bi ci njiital sëñ Abo Say ak dong yi nga xam ne mas nañoo jaar ci daara ji mm-hmm. ak fédération yi nga xam ne ñooy soppi sëñ son yi mm-hmm. ñoo séq liggéey bi ci kilifteefu nag mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi mm-hmm. waaye ak sunu kilifa gu tedd gi fi nekk di sëñ Ahmadou Mbacké programme bi nag ni mu baaxoo woon di ko doxee mooy koor gi bu teroo ñaareelu fan bi ci la programme bi tàmbali. maanaam ci lay tàmbali wooree ba waaw bu ñu nee tey woor nañu rek ñaareelu fan bi ci la programme bi tàmbali. Mhm. màggal gi nag juróomeelu fan bi la waaye ñaareelu fan bi mhm. ci la programme bi tàmbali ni muy doxe nag mooy dañoo aada woowoon saa bu ko màggal gi ñëw ñu seet kenn ci doomi sëñ son bi yu jigéen yi dem këram amal fa ay plateau yoo xam ne dañuy waxtaan ci diggante sëñ son bu ak alxuraan wala diggante sëñ son bu ak xam-xam mhm. ren thème bi nga xam moom lañ tànn ngir war koo waxtaane ci jataay yépp mooy diggante sëñ son bu ak alxuraan ren nag mi nga amee kër sëñ euh, kër soxna moomi daam ca Mbàkke ñaari Baay Fall fa lañ koy amale programme bi mi ngi tàmbali vingt-deux heures pile ba minuit ci ñaareelu fanu koor gi bu dee ñetteelu fanu koor gi kuréel gi nga xam ne mooy turandoo sëñ son bi dafa am jataay bu ñu organisé ci pénc bi muy jataay boo xam ne jataayu xam-xam la ci fàttaliku ay meloom ak yi jikkoom ak ni meloon diggam ak alxuraan mm-hmm. boobu itam ci ñetteelu fan bi lay am moom it heure heure bi muy tàmbali mooy vingt deux heures ba minuit mhm. ñeenteelu fan bi dafa am benn makkatab boo xam dafa nekk ci biir kër sëñ sony bu mhm. sëñ Ahmadou Mbàkke moo ko doon liggéeyloo waa kër Njóoga Kebe ñu liggéey ko ba mu àgg te loola day cosaan loo xam ne ci seen wayjur la tàmbale woon mhm. ndax jàkk jëñ fa njëkk def seen wayjur la sëñ sony bu santoon mu def ko loola la yeesalaat ci njaboot googu ñoom it ñu tabax makkatab àgg ñu war ko inaugurer. Mhm. ci ñeenteelu fanu koor gi. heure bi mooy 9 heures pile ba 14 juróomeelu fan gi nag mooy bisu màggal gi. nga xam ne bu ñu xëyee moom ñu ngi koy tàmbalee alquran ak xasida ak salaatu ala nabi ba Tosbar. Mhm. bu ñu julee Tosbar dellu siwaat 14 ba 17 heures mooy am. Mhm. ci waxtaan sëñ son bi ak alquran. bu 17 heures jotee nag bañ julli tàkkusaan ci la sëñ bi génn. ñu amal cérémonie bi moo waxtaan ak mbooloo mi soññu leen yeewi leen ñaana leen ba di leen. macha allah jërëjëf ñu koy gërëm bu baax sëñ Modou Akima. Ah. sëñ Abdou Akim Mbacke ñu koy wala Ndour ñu koy jaajëfal bu baax. <laughs> bokk ci commission culturel màggalu sëñ Sonia gi bi ñuy door ñaari fan ci cor gi maanaam bu ñu ooree ba mu am ñaari fan jëm juróomi fan ci koor gi mu doom programme bu am solo at mu ne ñu koy amal ren jii nag euh, ñu fa yéene ci ànd ak euh, Walfadjri mi ngi nii ñu koy gërëm bu baax di ko sant di la ñaanal yoonu jàmm di am mbégte nag ci sa teewaay euh, xam na ni waxtu yu xat na te mënoon la bàyyi nga gën a yaatal ndaxte waxtaan bi neex na li saa di wax laaj sax doo ko bëgg parce que da bëgg euh, xam-xam bi kon di la ñaanal rek euh, suñu borom def la defal la xewal defal la sutura mais aussi yokk sa kilifteef parce que kontaan nañu bu baax a baax te bu li olof yi wax la sañ ba def lay xeeñ waaw maanaam li butéel def la saañ bi di xeeñ ku la xool xam ne ci njabootu sëñ son bi parce que xam-xam bi macha allah ñu lay jaajëfal bu baax su kaa kon euh, mi ngi noonu.